léegi ñuy toog doon xaar ndigal bu ñu yëkkati li metti nag ci ñun ci jigéenu àdduna bi yépp laay wax ndax ki ñu laal dafa fekkoon jamono bi ñu ñuy tudd bi muy génn di ñu génnee ci géeju lab gi dafa fekkoon boo waxee sax ñu ni la jigéen njàngam àlluwaam jaru ko ndax njàngu jigéen du sore dafa fekkoon boobu jàngaluñ nu doylu dañ na jigéen daal àlluwaam du sore diineem du sore lu mu am baax na moom moo ñu fekk ci ñu naan jigéen gàcce du rey kenn moo ñu fekk fii ci diggu Sénégal ñu naan lu fi jigéen def rek seru dënk la kër goo dem fekk ko fa moom moo ñëw xamal ñu ne seen dignité ak seen personnalité ëpp na ñu leen di tuumaal ci ngor ëpp na ñu leen di wokk ci jom ëpp na ñu leen di wokk ci ñàkk doylu ëpp na ñu leen di teg di leen corrompre di leen jënd di leen chantage ëpp na ñu leen di tëj ci néeg di leen digg lu tax ngeen di ŋàññi deru gor gor soo xam ne li mu liggéeyal yàlla sa juróom-ñaar fukki maam liggéeyuñu ko gor soo xam ne mooy boroom juróom-ñaari maamu mystique yi gor soo xamante ne làbbali na ñëpp fii ci digg université Ramadan jigéen waxuma la moom ñi mu yar waxuma la ñi mu defar wante jigéen ñëw na fi boo xam ne ni carrément man gëmuma ko bokkuma ci tarixam bokkuma ci mouvement waaye ñi mu yar ñoo ma defar ñoo tax sama kër jag ñoo tax ma nekk nit ñoo tax ma xam ne ndeke jigéen am na valeur bu dul taxawaalu ci mbedd loolu publiquement mën nañ la defar soo wàññeekoo di wokk ci deram te kenn faju ko te say milliards yi junniy moroom nekk fi mën koo faj dafa am lu tax may wax nag ne ci turu jigéen ñëpp ñun de xaw ma kenn ne mbooleem jigéen buy mu musta njaxateeg 16 février fi la ñu fekkoon ak yeneen yu ko jiitu te duñu daw duñu daay te moom si boppam li ko may sens mooy fa mu nekk te ba mu koy def ak fa mu koy waxee kenn nekku fa looloo ko sauvé may wax nag ne jigéen ñi am na lu ñu wax am na lu ñu war a mën a wax li metti nag mooy li li Serigne Moustapha Sy defar ci jigéen li Serigne Moustapha yar ci jigéen li Serigne Moustapha liggéeyal yàlla ci jigéen ba li mu wax tey boo ko peese woon waxal koy jigéen yonent waxu ko ñu dem nag ba dernier siècle mu li mu defar ñëpp ñeent fukki at mu leen di defar ñu dem ba àdduna wërngal cëpp benn sagaru nit simple nit bu ndaw a ndaw nekk gi mu nekk jigéen moonu naqadi moo tax jigéen ñëpp am feebaru xol ndax ñépp am lu leen naqadi ndax tudd gi ñu koy tudd mu nekk jigéen di ñu tudd ñu nekk jigéen looloo ñu metti waaye nag la woykatu araab ba waxoon soo dee waxal da wax ak kuy dund moom nag dafa dundatul dafa dee wax ay waxam waxatuñ ko ndax moom alku na ba pare mais dañ ko bëgg faj pour une bonne fois ba keneen ku jógati yaak ña nga am ak ña nga kem ni allahuma loo ñaan mu nangu xanaa martabaa ma lewet ndax comme moom moo ni wilaaya xol bu sell moo ko gënal wilaaya moo tax ne bu dul woon ak loolu waxuma la moom mais lépp doon na doom moo tax nun dañuy sukk di jéggalu si Malick di la ko yóbbante di wax suñu njéggal képp koy jigéen di wax ne ñoo ngi rot di tuub di sujjóot di jéggalu ci kàddu gi jub te jigéen jubal ko ñu lay wax ne metti nañu ba ci kanamu yàlla noo ngi koy sukk ndax dañuy ragal li alxuraan di wax laatu na laa tusibanna lazina zalamu minkum xaasa mu mbayum gumba mi mu laawaale ñu waaye ñu lay ñaan si Malick fawaat ne ñu ngi sukk di jéggalu mu jéggalaale ñu ko ci kàddu gi nu ko dégg sax te mënuñu koo faj ndax bokkul ci tegginu tariqa ci tegginu taalibe sax ñu wax sa kilifa dara te mënoo koo faj te nga toog di ko dégg kon loolu metti na ci ñun ñu ngi koy naqarlu di wax nag bépp jigéen boo xam ne jógal nga ak foo jóge ak koo yaakaar ak kamu yaakaar ñu wax ne alt mayatuñu ko kenn ndax suñu baayu xaqiqa la suñu baayu maanaa la suñu baayu ruux la dafa defar suñu jukko daf ñoo yar moo ñu gënal àdduna ak lis biiram ak lu dul àdduna moom la ñu am moom la ñu gëm te raday naa bi bihi shayqan ilaa aaxiri daal kon ñuy wax ne rek ñi ngi koy wax ñépp di wax nag buñ ci jógul ñun dinañ ci ñi ci war a jóg buñ ci jógul dinañ ci jóg dinañ ko dënniir lu nag ndax ki ñu dal si kawam moo leen dérange koo xam ne sa lépp dérange ñëpp bu ñu dalee si kaw dañuy ree waaye ma wax ne ku ree doo kekku ndax lu tax ku ree doo kekku mooy yoonu alkande dafay saf suukar gis nga firaaw na bi ko yàlla di alal tuub na jéggalu na lu ne yàlla ni ko mukk naa la fi def estati ku ñëwati jànge ci yow moom mii nag wàllam wéy na ku ñëwati da ngay jànge ci moom ndax alku na ba pare waxuma la moom alku na mais ku àndoon ak moom ci mbir mi alkande gi du la fa bàyyi dalay lay faagaagaale loolu soreetul te ñun xam nañ ci dara ndax xam nañu ki nu gëm xam nañu ki nu amal affaire xam nañu ki nu laal kon nag ñu ngi jéggalu ñëpp sëriñ su kàddu yi diisee maa ngi jéggalu di tuub bu baax a baax ci façon bi ñaan di la ñaan la ñaanal ñu jéggal ñu ci kàddu yi asalaamaaleykum